demagum da ngay des sax ñun ñu daal di euh, seetaane rek li nga xamante ne moo di collectivité locale tey nag dañoo génn Dakar. ñoo ngi fii ci commune bu Diender. tolloo ak juróom fukki kilomètre ak ndakaaru fii sax ki ñu fi gën a xam ci homme politique donte du maire bi moo di Ibrahima Ndoye Njandeer nag nekk na commune boo xamante ne li mu ëmb ci ay village bari nañ bokk na ci Coor Mbijëm Waxal Jàmm Cëndéem Jandeer Njëgéen ak Ndigam yooyu village yëpp nag kii nga xamante ne moo di Ibrahima Ndoye fexe na rek ba lépp loo xamante ne manqué woon nañ ko te doolam àgg fa mu dimbali leen ci bokk na ci wàllu financement wàllum fexe ba jumaa yi egg loolu tax na ci village bu ci nekk jumaa bu ci ne jox nañ leen lu toll ci juróomi million mag yi fa dëkkee di ko rafet rafetlu lool. amoon nañu fi jafe-jafe ndox yoo xamante ni dañu daan rooti si àll bi da nga daan xëy heure yi jigéen ñi daaw ñu mën a togg sax ak jigéen wëri ndox. yàlla dogal na si nguuru Macky Sall gi si lañu yàlla jàppale suñu rakk di Ibrahima Ndoye ministre dox ba yàlla dimbali nu mu andi fi ndox ndox moom fi mu bo nekkee sa kër fi mu toll boo tëddee sa nek sa bu la neexee da ngay toog ba nga jëw tal sa rabina te xeeli sa ndox dem rabu dem togg te du am ben problème ndox bu dee tali ci Macky Sall nu ko am bu dee sunu juma jiitam jàppale jàppale boo xamante ne bii wax dëgg yalla bi muy ñëw ay at mu ngi fi ab soror moom la jox Ibrahima du jóg délégation ñëw fi ànd ak seet si jumaa ji yaakaar naa bi mu xam na ni am nañu pas-pas. bi ñu ko waxee dañu bëgg jumaa mu daal di dem ci président wax ak moom président baax baaxañu juróomi million bu boole li ñu yoroon ci lañ commencé jumaa ji. def ko en construction gis Jandeer nekkoon ab commune boo xamante ne daanaka amul woon ndox amul woon itam lii di courant waaye seetlu nañ ne depuis bi fi makki sàll toogee ba tey ak Ibrahima Ndoye fexe nañ ba jëm fa indim ndox ndaxte kat gis nañ ni village yu ne jéem nañ faa def ay forage installé fa ay robine installation électrique yi itam am na fi li des rek kay xanaa moo di courant bi ñëw te loolu sax ndaw ñi ñu ngi koy jooytu kii nga xamante ne moom mooy chef de l'État. jusqu'à te nun Macky Sall nun dañ ko gëm te li gëm mooy aussi Thiédéem sera le pôle économique de Diender courant mun naa ne suñu maam yi dañ koo dégg ba dee suñu papa yi donc en la en élection yi passé en 2014 législative yi commune kii yooyu si la ko si la Ibrahima doy ñëw fii implanté fi courant bi noonu foogoon nañu balaa heure bii sax courant bi dem na yoonam bu yàgg te suñu suñu seul blocage mooy le courant. boo xoolee problème santé suñu santé suñu problème santé publique ñëpp ñoom moom la ñu jooy boo demee Jandeer Toor Mbijëm kon bu ñu bëggoon vraiment fu ñu dimbal foofu côté boobu te bëgguñ ñu dimbali ñu ci. waaw ci problème accès tamit euh, ci terre bi tamit am na problème femmes yaa ngi bëgg luñ liggéey fi na boo xoolee ñu ci période mànga. mais femmes amuñu ay subvention yoo xamante fa la ñuy jox xaalis pour ñu mën a dem ci ci jënd maa nga di jaay. gis nañ ne kat jigéenu Jondeer gannaaw bañ leen joxee am ndox teewul seen coono ba tey mi ngi fi ndaxte ku ci am doom daanaka rek. di nga def lu toll ci ñaari kilomètre ba ñett ngir mën a dem ci district sanitaire yi fa nekk te sax yoon wi ñuy jël ngir bu ñuy dem neexul te itam charrette la ñuy jël loolu moo waral ci wàllu infrastructure ñoom ñi ñu ñaan nguur gi mu jàppale leen si ñoom jigéen ñi ba tey bokk nañ ci seeni coono ak ci seeni mbébét ñu dimbale leen si seeni activité économique ba ñu mën a dugg ci wàllu koom-koom loolu nag leen kese moo leen ko mën a may mooy ay projet yoo xamante ne dana leen financé. ca déem am na fukki junniy nit ñoo fi nekk ak benn ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn amuñu benn district boo xamante ne bii moo fi ñoom lañ fi mën a fajoo fi mu toll nii si biir ca déem amul si biir ca déem bu ñu jógee fi dañuy waxu presque ay deux kilomètres un kilomètre cinq cent soo dem faju ji loolu li ñu gën a sonal loolu si la bokk. moo noonu ay jafe-jafe yu métti wala daan jóge du gàddu suñuy bidon di dem fu sori di rooti teen ndox mi du baax du ñu bëggee fóot àll ba la ñuy fóotee dañuy sonn bay bëgg a dee bu koor jotee dangay toog ba 6 heures ngay doo toog taal ndogu doo am ndox na bay bëgg a dee boo doo am doo sangoo doo am doo sang say xale mais léegi bi fi Ibrahima doo duggee ba tey loolu lépp dañ na fi. Macky Sall de ñëpp la fi nekkal. kon nañu bind lettre jox ko ndax mu dimbali ñu bind lettre boobu jox ko ko mun nungul ñu loolu ba pare boole waa ci jumaa yi ci jandeer yëpp la mu ñu jëkk dafa defal mooy jël suñu doomu jandeer teg ci wetam parce que sans moom aussi loolu doon na jafe parce que li ko jiitu amuñu ko woon mun ñu woon jot waaye mu jël suñu doom bu ñu wax Ibrahima teg ci wetam Jandeer nekk ab ville boo xamante ne seetlu nañ fa ne lii di seen i activité économique wàllum mbay la ak wàllum maraîcher waaye gis nañ ne ñoom ñi kat manqué nañ ay tali yoo xamante ne moo dem ba seen tool waaye gis nañ ne itam rendement yi ñu waroon a am amuñu ko loolu yëpp li ko waral mooy manque de moyen ndaxte kat équipement yi manqué na fa lool tax na sax ñenn ci population yi di ndaw ñi ak kilifay dëkk bi di ñaan ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi ñu mën leen jàppale ci wàllu woowu ndaxte kat mën na nekk ab pôle économique xamante source d'emploi lay doon. li manque manqué mooy extension électrique lu ñu sañoon daal am euh, ñu xool nan la ñuy yokkee dëkk bi dafa manqué trop ba fi mu ne ci ay extension électrique dafa bari. nous voulons la création d'une classe de seconde pour abattre un lycée xale yi dafay paase brevet dafay paase baccalauréat bu ko defee fare wàññeeku ndax diggante bayax ak fii bés bu na nga jox sa doon téeméer dafa metti soo amee ñaari doom am ñetti doom dafay metti mais bu ñu yàlla defalee lycée fare day daal di allégé seetloo liñ fi jot a gis ñoom waa Jandeer nii daanaka rek sant nañ nguur gi nga xam ne moo fi jot a nekk ndaxte am na yu bëri yoo xamante ne amuñu ko woon tey jii jot nañ ci xanaa kay li ñuy ñaan rek ñoom ñi moo di seen dëkkuwaay gën a mën a yokku ñu am ay infrastructure tali yu baax ak dëkkin wu gën a neex loolu tax na ñuy ñaan président de la république mu jàppale leen lu mu man te loolu mi ngi mën a jaaree rek ci kii nga xam ne mooy seenu doom di Ibrahima Ndoye top gis nañ ni tay sa actualité de la semaine li nga laal mhm. waaye sax balaa ñu ciy sori dañuy laaj suñu invité parce que sànq ci ci actualité de la semaine balaa ñu ñëw sa collectivité locale dañ ci fàtte benn affaire bu ndaw mhm. Thiès bëri na problème temps yi Idrissa Seck Talla Sylla yow yaa ngi fa nan la demee bon bi mooy partie pique-nique de l'émission ah, toogal nii bi mooy am xéwal yi daal bi mooy am xéwal yi bon xam nga Thiès euh, dafa am dëkk yu mel noonu c'est une ville essentiellement politique dafa nekk d'abord fi mu positionné wu li mu laaj ci histoire u Sénégal dafa nekk lu ñuy dëkk bu am solo bu am tari taria tariax comme on dit mhm. en 2009 ci contexte bu xaw doy waar avec kay Wade am doole Idriss Seck am doole ñëw taxaw yalla def ñu am 1000 voix am ñaari conseil ak sa coalition bi nga àndoon waaw c'était c'est le le mouvement gëm sa bop mouvement gëm sa bop may wax ni mouvement gëm sa bop nak du naw sa bop président pour mu gëna li gëna a gaaw ci mu euh, gagné ties moy ga def ay ñi nga xamanteni day laal ñepp ci walu yoon yi ci walu ndox yi ci walu lepp ndox mi am nañ ci ay effort yu bari yu ci def. ci walu yeneen dina dina gëna tax dëkk bi parce que ki lay andal day bax mu ne li ya ko fi def. Mm-hmm. donc je crois que appel bobu lañuy lañuy lancer excellence président de la république diko wax ni ko ties en tout cas li fa góor gi defone ci moyen. ak ci alal ak ñem fa fal falu falu ñu toll noonu def fa moyen yooyu te lim fa am mm, wadd am ko bu ko defee dina baax ñun ñi di doomu Thiès sax loolu moom ko amoon dina baax lool waaw loolu daal lañ ci lañ ci lañ ci xam lañ ci xam euh, gis nañu waax ñoo la xeeli ji bi noonu waaw la wax ni sànq ba léegi yaa ngi gis yaa ngi laal suñu mu xam sa bi lii mu xam sa la ci hmm. leket ki nga xamante ne moo di xadim moo koy def à chaque fois lii tamit nag consommer sénégalais la daal consommer local te dafa ànd ak sa mouvement bi sax gëm sa bopp ba te ci la hmm. bokk <laughs> affaire bi day. gëm sa bopp la. ay sa bopp la xam nga le problème adduna moo ni demee. parce que boo nee euh, xam nga parfois gars yi dañuy. Mhm. gars yi dañuy dem quoi dañuy jaxase ak parfois président nag gis nga mi ngi nii kii gëmul ah. Euh, bañ na ko ba naan gëm sa bopp te turu gëm sa bopp bi. Mhm. ma wax fii exclusivité maa njëkk wax fii. Mhm. tur bi ñu ngi ko njëkk a génne ci salon président ma Sall man ak moom kese ñu toog. du ma nettali nag waxu président parce que bu doon te ni daf ma ko wax bi mu président du ma ko nettali. Mhm. mais boobu il venait juste de quitter l'Assemblée. assemblée. ma ne man daal damay engagé wu politique teg nañu suñu mouvement tudde ko conscience citoyenne. mu ne mais bon pour mu gën a accroché wu da nga def quelque chose bu nuroog olof quoi. ma ne ko bon ñun dañu xalaatoon peut-être gëm sa réew gëm sa bopp ah, ñu gëm daal. mu ne mais gëm sa bopp bi ça sonne bien donc il faut que nit ñi def ndànk. Mm-hmm. parce que ki jiite réew mi moom moom moom décret ku neex mën naafal fu ko neex. Mm-hmm. mais man li tax may maandu ku ci nekk xaw ma fu mu ànd ak yow ak lu mu seq ak yow. donc loolu dañ koy ñambaase pour nit ñi xam ni. Mm-hmm. bu doonte ni président day wax ni damay yem rek ci ñi nga xamante ni euh, ñoom laa bokkal parti. ah yaakaar nu ma parce que parti mun laa jox li nga soxla yëpp. donc yaakaar naan daal ñun fi ñuy gën a préciser mooy lii ñu jublu daal mooy nañu gën a dolli liggéey réew mi te bàyyi xel askan wi. Mm-hmm. collectivité locale. te ñu mm-hmm. gis ni da nga génn Dakar. waaw bi suñu rubrique bi nga xamantene ne ko jagleel walu gox goxaan yi dañoo génnoon Dakar dem ba Jandeer nekk à cinquante kilomètres de Dakar gëna a jege Thiès ñu fekkoon fa au ben ministre d'état bo xamantene sax du ñak ministre euh, Maodo xam na ko mu nek Ibrahima ndoy bu jander ñu gis fa ay réalisation yu bari yo xamantene def nako fa. Mhm. waaye ñu gis fa itam ay jafé jafé bokk na ci jander euh, fo xamantene ab ministre fa ñu war fa def ay réalisation mu nek ci bir presque nekul ab village mën nañoo wax ne foofu la commune la boo xamante ne mi ngi nekk en développement. Mhm. waaye gis nañ ne problème mu courant am na fa gis nañ ne problème ndox am na fa gis nañ ne installation yëpp am na waaye courant bi ba tey ñëwagul. Mhm. ndox itam tey mu ñëw suba du ñëw loolu population yi jooytu nañ ko waaye gannaaw bi ñu jooytoo loolu ñu population yi itam rafetlu nañ li nga xamante ne itam gis nañ ne amal na leen njëriñ lool moo di am ministre boo xamante ne doobu jandeer la ñu Euh, Sénégalais yi seen président de la république di Macky Sall waaye loolu ci ëpp solo rek mooy ñoom population yooyu liñ fi jot a moo di ñoom pare nañ ngir accompagner képp koo xamante ne rek jandeer ñor na waaye nee nañ li ñu bëgg daal bu ñu sañoon mooy ci wàllum koom ci wàllum agriculture ak ci wàllum emplois ñi nga xamante ne ñoo yilif réew mi ñu def ci ay jëf yoo xamante ne vraiment dina leen mën a dindil jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu nekkee gis nañ ne loolu seetlu nañ ko fa leena léegi ñu laaj rek rek ki nga xamante mooy suñu invité Maodo Malick noo gisee yooyu problème yi nga xamante ne gis nañ ko comme sànq ni nga relevé problème yi nekk Thiès ñu hmm. gis ko ci dëkk boobu nga xamante ne moom la ñuy wax Jandeer. waa Jandeer day damay wax ni kii fa xam nga dafa nekk dëkku histoire d'abord hmm. ki ngeen fa tudd noonu aussi nekk suñu waaye muy Ibrahima Ndoye hmm. euh, may wax ni xam nga dafa am tubaab dafa am kuy wax ni c'est tant quand il n'est pas permis d'espérer, mm -hmm. que l'acte d'espérer devient un acte de défi et de courage. Manam mhm. bu ñu nee ken sante yakar ta yaakaar ci moom ki bobo booba jàmbaar la. Mhm. te Ibrahim Ndoye dafa bokk ci ñi nga xamante ni tek, wala bi ñuy jël seen loxo bi ñuy ci côté président Macky Sall c'était pas évident Lolo, ma koy nuyu bu baax di wax ni war nañ ci baye xel je crois que war nañ ko dougal ci programme boobu war nañ ko dougal ci PUDC parce que actuellement euh, le président indi li ci pour régler problème askan qu'il mooy ñett PUDC Promoville et Pouma. Pouma, mooy am na dëkk yi nga qui ni ñi ngi ci frontière Sénégal la ñu bokk nekk ci ci euh, frontière Sénégal Gambie réseau Gambie la ñu a bu ñuy téléphone donc président gëm ni ñooñu dañ leen ci war a mhm. man approche su politique gu Macky Sall li ma ci neex mooy li muy ñi néew doole. Mhm. parce que mbam tuuti na mais ci jur gi la bokk. je crois que programme PUDC bobu buñ ñu ko yóbboo Jandeer Promoville ñu indi ko Thiès kay yu gaaw la. Mhm. parce que appel d'offre yeeg yoy yeb amna yoon buñ koy jaar buñ ci bolé euh, dolel en tout cas loolu day dooleel ki nek ci walu politique di di yeungu mhm. d'abord, et puis parce que c'est une idée, nga koy wara a et je crois que Ibrahima Jambar, en tout cas bu ñu jàppalee Dal, mhm. dina am solo. juste pour vous rappeler que notre invité du jour euh, mi ngi wuyoo ci Malick Mbaye DG président du mouvement Gamsabop, sa bopp DG Anamou. léegi ci ANAMO rek dañ en résumé léegi mun nga ñu wax tuuti rek lan euh, waa ANAMO ñu ngi ko sos euh, euh, en 2010 bi ñu ko sosee mhm. dañu gisoon ni euh, senegal dafa bari ñu nga xamante ni am nañu métier mokkal nañu métier bi waaye amuñu fu ñu defe seen métier ñi mokkal nañu métier bi mhm. waaye amuñu jumtukaay yi mhm. ñi am nañu métier mën nañ ko waaye li nga koy liggéeyee dafa xewi ñu gëm ni nak baye maçon nday maçon wala nday tailleur nga ni da donu ko jang ko bu mën ko def ko gëna wor mhm. donc lolo tax euh, ñu nguur gi fi joggé créé won agence nationale de la maison de l'outil le 8 avril 2010 buñ ko sossé mu wara nek ay jumtukaay yi nga xamanteni ni maison de l'outil bo fa duggé da nga fay fekk li nga soxla ci wàllu jumtukaay di nga fekk cadre bi mën fa dans sa doole tuuti mais il faut métier mhm. il y a le cadre d'exercice les équipements et l'accompagnement technologique la def le 31 mai 2012 le président Macky Sall a maison zéro maison de l'outil au Sénégal yi fi amoon yëpp ay convention la yu ñu signé woon. Mm-hmm. ak mairie Touba ak euh, chambre de commerce mu ab chambre de métier bu Dakar mu abal ñu tey teg nañu fukki maison de l'outil nga xamante ni ci nguuru Sénégal ci alalam ak suñuy partenaire lañu ko defee. Mm-hmm. indi nañu tamit leneen mooy am na métier yi nga xamante ni Sénégal daawuñu si former nit. Mm-hmm. xale yi koy def yëpp dañ koy mën. jang ko dañ koy mën di ci am expérience rek ni réparateur téléphone portable la loolu day indi problème parce que ko ci do xam ñaata plainte lañ lay indil ni la ki dafa yak sama téléphone wala yooyu ñun ñu jël ay indien ñu formel ñu ay formateur ñu commencé tass di former nit ñi ñu réparer téléphone portable faute ak passé dañoo defin kenn duko ko mm-hmm. ñu ñew indi formel ay nit ñi nga xamanteni ni ñi ngi leen ñi ngi jangal nit ñi nan la ñuy nan la passer paase mm-hmm. ba métier bobu ñu bëgg mu nekk métier bi nga xamanteni day am solo lool yëpp nak ñu koy def ci ministère de la formation professionnelle mm-hmm. de l'apprentissage et de l'artisanat. may remercier bu baax en tout cas mon mon ministre tutelle le ministre Mamadou Tala jappalé ñu bu baax aussi mm-hmm. vraiment ci ci mbir mi donc fofu lañu tollu te euh, maison de l'outil li tax mu am solo moy mbirum tey bu ñu nee ndaw ñi amuñu liggéey ñi dañ ciy sooraale ki jàngul école. effectivement ki njàngami yeggul ki nga xamante ni jàng na te amul diplôme ki nga xamante ni bëgg na métier te bugg ko mënu ko yooyu yëpp. ay secteur informel bi. Mhm. ay réponse la yi nga xamante ni war nañ ko war nañ ko apporter. ci remerciement boobu sax lañu ñuy daal di la remercier di la remercier ci invitation bi nga xamante ne wuy nga ko balaa ngay déguster rek nga wax ñu sa mot de la fin. Ouais, mot de la fin bi concept émission bi en tout cas maa ngi wax war nañ ko war nañ ko saawal ba ñëpp xam ko ah. mm-hmm. en tout cas man con considéré bu ko am ngeen ben partenaire. Mm-hmm. mais am ngeen volet commercial quoi légui après dañuy discuter ci ci commission bi ngeen may fay. mais je crois que une émission comme ça pour jaay ko warta jafe warta jafe parce que vraiment il y a toujours il y a que de l'originalité hein il y a que de l'originalité les tenues le truc backstage bi c'est-à-dire li ci donc euh, tax na man eh, mangi saluer vraiment concept émission bi di di jéggalu aussi ci nit ñi sétane bu dé wax nañu daralu lu mhm. manki wala lu di ñu jéggal ñuko mhm. di sante soxna Leena ak mon frère di remercier bu baax téléspectateurs yi ak équipe technique bi woon ci ginnaaw yëpp. top sa mot de la fin. waaw xanaa kontaan rek parce que buñ ñu amee invité bu mel ni Maodo Malick ñëw rafetlu li ñu jot liggéey. mooy wane ne ñun itam war nañoo gën a mën a góorgóorlu nag gën a farluwaat donte jot nañoo góorgóorlu gën a farluwaat ngir euh, liggéeyaat loo xamante ne daal njariñal askan wi lay doon. ñu fàttali ne rek euh, dañuy daal jàll ci li nga xamante ne moo di rubrique cuisine ginnaaw ki nga xamante ne mooy suñu invité dañ koy bàyyi mu dégusté plat Khady Ndiour merci.